tey maa ngi tëj maa ngi tëj maa ngi maa ngi tëj waaw. Thank you. Fatal Fatal laaj Fatal laaj. ak kii bi ñu ngi daal di toog ba Diouf Guèye Ndiaye kii bi am ngeen ay leer ak quatre rapprochés yi. aussi président bi lii partage leen daal seen partage. bàyyi la ko day julli ñu ngi tudd bàyyi la ko. pas les prix. pourquoi. je ne pas les prix. kii laa doon rek yow xam naa la yow. waaw xam naa la ah. daje nañu dajewaat. c'est des instructions de la hiérarchie. <laughs> c'est des instructions de la hiérarchie. donc la hiérarchie en plus de d'entraver la liberté. la ley de revenir des citoyens entrave maintenant la liberté de culte. Non, l'ordre n'est pas légal. Sur quelle base La Constitution dit que j'ai le droit de bouger. La Constitution dit que j'ai le droit d'aller prier. Donc, un ordre ne peut pas violer la Constitution. Le commandement ne tire sa légitimité que de la loi. Il n'y a pas de... En droit administratif, on parle d'ordre manifestement illégal. c'est pas toute offre qui est illégale. Donc quand on offre qui est illégale, vous en tant que police, vous avez le droit de déduire. C'est pas toute offre qu'on exécute de manière normale. C'est manifestement, flagramment, c'est illégal. Mais je ne vous en veux pas, vous faites votre travail, donc c'est un moment de communication. Et c'est à cela que notre République est L'objectif nous ñu ngi leen di gërëm en tout cas. wax ni Sénégal yëpp fii dara loolu yaakaar naa waaw liggéey nañu ne ngeen euh, dañu war a dem en dem julli ji ci moom. loolu li ñuy firnde mooy dëkk bi ñëw nga xam ne constitution ñi ko may xaj nañ ko waaye liberté bi nga xam ne may nañ ko képp. kuy Sénégalais ci gëm-gëmam ngay chrétien ngay jullit wala ngay sax euh, euh, religion traditionnelle ñu ne la am nga droit euh, ci sa sa diine même liberté boobu xaj nañ ñu ko tey loolu laa doon ak sëñ bi nee dañoo jot tey or ma ne ko nag réew day dox ci droit droit hiérarchie des normes la constitution moo jiitu loi yi doog a ñëw règlement yi doog ñëw un ordre c'est un règlement mënul violer constitution mënul booy violer la loi or bii or dafa violer constitution la loi mais li ma ci tënk rek mooy du ñoom ñoom victime lañ si ñun victime lañ si ay autorité politique yoo xam ne euh, tiit gi ñu tiit ak euh, beew gi ñu beew ci pouvoir moo leen jaral lii lépp malheureusement y a des agents qui sont obligés de faire le travail et ils sont pas forcément d'accord et nous en sommes tey àdduna yëpp àdduna yëpp gis na li xew lii mooy le régime de Macky Sall je vous remercie jërëjëf jërëjëf. ñu ne ko góor gi ñu maanaam daal yow dew dem.